Rewmi 24 TV. bisimilah leen ak jàmm ci xibaar mardi. 26 décembre Moustapha Diop di journaliste nekk foofe ci Walf TV moom mii di Moustapha Diop yëkkati ay révélation yu triste yu day waar jëmale ko ci ki nga xamante ne moom mooy Ndongo Diop patriote dëkk fële ci Diourbel ginnaaw bañ ko arrêté moom mi di Ndongo Diop mu teel ci quinze mois yoo xamante ne moom mi di Ndongo Diop ma nga ca prison ba ginnaaw nag ba Moustapha Diop ne rek moom mi di Ndongo Diop woo na ko ñaari yoon yoo xamante ne ma ngi koy xamal ne ko ba léegi rek procureur mënul xam benn yoon lan lañ ko jàppee moom mii di Ndongo Diop ginnaaw ba mu leen ko laajee lañ ko xamal rek mooy dafa am émission boo doon def ca Walf di balance la ca waxoon moo tax mu jàpp waaye boobu ba léegi kenn mënul tax rek ñu xam tax ñu jàpp ki nga xamante ne mooy Ndongo Diop loolee waral sax moom Ndongo Diop di woo ki nga xamante ne mooy Moustapha Diop Walf TV lu ci doy waar nag mooy Ndongo Diop mi nga xamante ne ma ngay xamal Moustapha Diop ne ko ginnaaw bañ koy arrêté sax moom dafa fekkoon kii di soxnaam moom mii di Ndongo Diop ëmboon ay seex noonu rek la tollu ca seex maanaam seex yi dañoo mujjee seen bakkan ngir rek jàpp jàpp gi ñu jàpp ndongo nga xamante ne soxnaam soosu amoon na ay seex noonu ne ci toll moom mii di ndongo Diop ma ngay xam ne ne yàgg na ci prison bi lool daal dina fay def li nga xamante ne moom mooy quinze mois yoo xamante ne rek kenn lan lañ ko jàppee procureur ma ngi koy ko rek liñ la jàppee ca balance wal fajar yi da nga faa yëkkati woon ay kàddu loolu rek waral ñu arrêté woon Ndongo Diop mois yoo xamante ne rek moom mii di Ndongo Diop ma nga ca prison ba